dialogue nationale bi ab perte de temps képp la lii di ab gis-gisu professeur Ibrahima Silla moom analyste politique bi jàpp ni que bile jotaay amul benn sañ-sañu jàpp datu élection présidentielle. kilifa diine kilifa aada ñu toog waxtaan ak acteur politiques yi jël seen benn décision bëgg ko imposer ci kaw décision wu conseil constitutionnel loolu mënut a am dialogue importance bu mu mën na am ci société te am na importance. mais dafa am loo xam ne constitution moo nu tënk. moom professeur u science politique foofee ci université Gaston Berger bu Saint-Louis bi daal di jàpp ne que jàpp ab datu élection présidentielle warul doon lu jafe si ab réewu démocratie. amnistie bi gën a métti nga xam ne na nga nar a bind réfléchir woo ay nit magistrat ay juriste loolu génn nañ ko pratiquement tey mais li gën a am solo mais gën a yomb loo xam ne njiitu réew war na mën am kattan boobu jël calendrier jëlal dans les meilleurs délais loolu moo gën a yomb loo gis. Ibrahima Silla jàppee position président Macky Sall bi ab désobéissance waay itam bañ a tënku ci décision conseil constitutionnel bi. sachez que vous partez le 2 avant. na xam ne di nga dem kon na fexe ba organiser élection yi fii ak euh, ñaari fan ci weeru avril dafa mel ni rek euh, njiitu réew mi bëggul organiser élection yi ndax boo xoolee dialogue bi mu woote ak amnistie euh, bi mu wax nee na sax dina saisir conseil constitutionnel ci loo xamante ne wax na ci boo pare. C'était lu jëm si loi d'amnistie bi professeur Ibrahima Silla daal di xam ne ni que bile loi mbëbëtam mooy fomp bépp crime ak bépp ñaawteef mi nga xamante ne amal nañ ko fi mars 2021 jàpp tey gii mu si yokk naan njiitu réew mi du fii la ko sénégalais yi doon xaaree.